3S Pro. cant ngërëm ñeneen leen a baax ñu topp seen làmb TV di leen ziara di am contentement ak mbégte janu gën chaque jour comme ni ne ma ko waxee ci suba ci Jackson ci nga xam te ne mooy Thiam production war a taxawal combat bu neex a neex 25 yaakaar naa galaa boobu ku ko tardé di nga tardé lu neex waaye ku ko fekkee nga fekkee lamb ju neex neex a teg ci ay jeunes ay xale ay ndaanaan yaakaar naa ne kim ci teg nag di Kaw Gourdin Dalifor borom tëbal ma pour dee dal mu tëbal spa war a daje ki nga xam te ne mooy bulldozer bulldozer di mbër boo xam mbër bu technique la ñu koo ràññee ci simple yi mu ciy way baaraam waaye surtout avec frappe bi aussi kaagu ren nuyu ko laaj ko naka lay waajalee combat boobule waaye la 25 lan la si nar diggante mag ki nga mooy bulldozer kaagu gourne maa ngi di la nuyu Ndeye Mbacke ñoo ngi lay nuyu ginnaaw loolu ñuy wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di sant yàlla bu baax di julli ci yonante bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Abib si bu maablu Aziz si baax di sant waa Dalifort yëpp di leen bëggee di leen wax ñoo ngi gis ñaani di nuyu tamit suñu waa école de muy waa école de lutte Dalifort di nuyu suñu papa père Tombe père Modou Diouf ak ñu mu àndal ñëpp père per père yi xam nga du Abdou Faye di nuyu waa Dalifort ñëpp nag rawatina képp kuy soppee Kaw Gourdin rek Kaw Gourdin mu ngi lay nuyu. plaisir baax a baax Kaw Gourdin ñu gis bokk nga ci mbër yu gën a lëlu boo mu lay combat duñ la gis duñ la dégg lan la luy problème waaw nday mbaake waaw loolu sant yàlla la rek parce que yaakaar naa ni bërigo bu def jarul muy bëri buru yi bëri bërigo nag bu deful day bëri buru yi ñun dañoo nekk ci lu ñu war a nekk nekk ci loxo yaa nga xamante ne wax dëgg yàlla ay kilifa ñëw ñu wër ku ci mel ni Père Modou Diouf sunu président xam nga moom moom kenn du moom wax dëgg yàlla. nekk ci lu ñu war a nekk rek nday Mbacke waaw nekk ci sunuy entraînement nekk ci sunu rukk lool la rek. mafia bi waaw mooy ngi fi saala saala yi ñoo ngi fi de <laughs> mafia njaga bi xam nga waa Kalamanaas ñëpp ñoo ngi fi waa Ruuxa xam sama gaay noonu waa sélection maaro bi ñëpp ñoo ngi waaj wax dëgg yàlla waa sutura sama gaay yi ñëpp ñoo ngi waaj de waaw. nga jël ki nga xamante ne nii nag mooy bulldozer di champion di ndaanaan dugg na fi bërek euh, caatu yaraax yaakaar naa ne benn ngeen lonko la génn fi duggaat ci Kagourne choix bi lan la. waaw choix bi du dara de parce que yaakaar naa ni moog caatu yaraax moog caatu yaraax la mais bii dafa am dëj dëpp bi muy Kaaw Gourdin ñoo ngi ñaan yàlla nag yàlla dugal ñu ci bis bi bisimilah rahmaani rahim génne ñu ci alhamdulilah rabbil alamin mais ñu ndam ci kaw bil bil désert waaw war ko daan dafa war a bokk ci ñu ñu war a daan incha allah. moo tax ñu boole ko ci loolu dong la de moo nekk moo tax choix bi. Mm-hmm. mais wéeru wéeru auto du pot mbër yi dañuy bëgg di nëbbatu wala dañuy bëgg di jaar quatre chemin pour yeeg wala fekk naa la arène nationale ngeen tëkkonte man la sa diggante ak bulldozer man xaw nga ma sax dóor man ne ma du ma moromam ñi xëy ñi ne euh, kaagur ne jël na bulldozer waaw loolu yëpp du dara parce que mbër moom mbër la rek da ngay bëgg li ngay bëgg nag après suñu borom mooy xool lu gën ci yow mu def ko ci yow ñun bëggoon nañ leneen wax dëgg yàlla lu gën a kawe bulldozer mais suñu borom moo nañ ñun ak bulldozer dañuy bëre yàlla def na mu am day ñaan yàlla suturaal ñu ma ñu ndam rek. <laughs> wàccaay bi non kaw moom amul leen lu muy wàcc ci léegi ci làmb parce que man li ma lay wax rek laay waxaat man saison laay entraîné kuy entraîné saison moom yaakaar naa ni benn date du la jaaxal man saison laay entraîné loolu la rek mais amul leneen lu dul di waaj rek comme ni ñu doon waajee rek loolu la rek. Kaw Gourdin la gars yi di jëwee toujours man moom li gars di jëwee yëpp man maa koy wax ñu ne Kaw Gourdin dafa constant. pour mu yéeg problème la day taxaw di bëreeg morom yi bëreeg morom yi ba nga jël ndigal ñu bëri naa ku ko ëpp niveau bëri naa ku ko may sens nga waroon def preuve foofu noonu gis nga combat bi ci match la la jógee nga jëlaat sa morom koo xam te ne yéen a bokk benn yoon daan dem la wala daan toog pression bi combat bi lan la. waaw amul pression ah, parce que mooy li ma la wax léegi li ngay bëgg yow moom ngay bëgg sa ñeneen ñoom la ñuy bëgg mais lu yàlla di dogal nag yàlla xam lu gën ci yow mu def ko dëgg yàlla mooy li ma la wax léegi bil parce que yaakaar naa sama digganteeg ndigal ku ci ne gis na li ci am xam nga mais loolu yëpp dañ ciy sant yàlla jëlaat ki nga xamante ne Bulldozer sunu morom la sunu morom la mais dafa nekk ka nga xamante ne wax dëgg yàlla parcours am baax na te dafa war a bokk ci ñi nga xamante ne gourdin bi daleen leen war a dal voilà <laughs> noonu la demee. non dañ koy benn tàccu la rek boo ko defee benn tàccu après tëbal bi day yomb donc koy waaw yaa a xam. gisante ngeen nappante ngeen nattante ngeen boo ko gisee lu mu la def. waaw moom yaa ma gën xam am na xamante ne jarutul ñu ciy wax di ci waxaat parce que yaakaar naa ñaari góor moom bu ñu bu ñu ñamantewul rek mënuñoo xam nu mu demee incha allah le 25 dina xam kan la amal affaire man tam dinaa xam kan la amal affaire. mais nattante ngeen xoolante ngeen nattante ku ne xam sa dëgg la morom fu mu. waaw loolu moom xoolante la ay bët la rek mais runkum bi moom solo te incha allah ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ceeg jàpp. le 25 waaw bët moo natt des fois gis siwo bi nga xool ko xam ne yow mi attanoo siwo bi ba nga gis ko xam ne yow mi attan nga siwo bi yow ba nga gis bi la jar loolu. waaw ñun dara diisul ci ñun wax dëgg yàlla parce que yaakaar naa kuy jóg mbooloo topp la dara mënul diis ci ñun wax dëgg yàlla parce que yaakaar naa bëri nañ bëriwaat bëri nañ tàkkusaan yu ne. bi la dañ koy jox lu mu moom muy xam nga cër buñ ko war a jox après le reste incha allah le 25 dina xam kan la amal affaire loolu la rek. Mm-hmm. lu mu wax. lu la yóbbal lan la wax sa kanam gi dafa neex a dóor kon maanaam kon maanaam Bulldozer dafa nar a jàpp Kaw Gourdin dóor dóor a dóor mu tëdd mu tegee ne dem waaw Kaw Gourdin miin na miin na miin na genre mbër yi waxkat yooyu noonu genre mbër yi nga xamante ne dañuy wax moom Kaw Gourdin miin na xam kanam bi neex na dóor wala neexul dóor yaa maag moom du dara ah, wax dëgg yàlla nee na yow balaa laamu taxawee ba léegi yaay tax rajo yi koñoo koñ pot lamp pot lamp nga nekk fa di wax. waaw man wax boobu daf maa jaaxal de parce que man moom pour ma génn ci site internet sax c'est bu ma amul combat du ma génn fenn wax dëgg yàlla moo tax bu mu waxee loolu dama ko dama écho rek bàyyi ko ci biir xam ni le 25 dina xam ni <laughs> wax bi wax bi jëf bi da ko ëpp solo. yaa ngi benn tàcc nga may moom benn jooy la la def dem yoonam maanaam yow taxaw koo jug daal da bokk si yoonam nii rek mbas amul choix mu ramu jël. xam ma wax naa la ko léegi ma ne la Bulldozer choix bi lenn la muy mu war a daanu vingt cinq dafa war a daanu la vingt cinq moo tax choix bi comme nee na man benn jooy la may def waaw ñu xool mba boo dóorul nit ki boo ko dóorul mba xam dina jooy te man benn tàccu laa koy def te buñ buñ ko tàccoo <laughs> dina xam lépp dëgg la lu leer laa combat ni muy déroulé koy bëri waaw Bulldozer xam naa ko xamul làmb ah parce que man moom mooy li ma wax man moom am na nga xamante ne du ma ko topp ba mu sos li ma xam ci moom mooy mbër la comme mbër yëpp wax dëgg yàlla mbër la champion. mais day daja ka nga xamante ne muy gourdin bi day daja kaaw gourdin doomu dalifoor bi xam nga doomu fépp fép fépp <laughs> doomu laalaakay lay dajal <laughs> waaw muy noonu am na yoo xamante ne moom yaa ma gën a xam dañuy bàyyi la nga xamante ne mooy le 25 incha allah Bulldozer dina xam kan la amal affaire. xool ma caméra bi looy yóbbante yóbbante bi mooy li ma la wax rek benn tàccu lañ koy tàccu après. te gourdin bi dina ko dal munu ci dara te ci kàttanu yàlla bu dëggalee boppam làmb ji du yàgg. yaakaar mhm. naa ne yàgg ngay bëri ay grand combat mais tey jii beneen phénomène wala beneen tournée la làmb ji am yaa naa ne comme ni mu koy defee chaque année chaque vingt cinq day tëgg ay gala yu bari tëgg ay kat grand combat yu bari nga nekk si biir bokku si wàccaay bi lan lay doon ndax instant boobu ku nekk nag lu goro da xam day def da koy bootee doon. waaw loolu moom dëgg la loolu dañ koy dañ koy bëggee muy Baba Diaw ah. muy jeune xama bi nga xamante ne wax dëgg yàlla man c'est la première fois mu tëgg ma te bu ma juumul ñoo ngi doog a toog lu dul signature boobu noonu ñoo ngi doog a toog wax dëgg yàlla muy ku baax ku yaru tamit wax dëgg yàlla moo tax journée am ñun dañ ko doon dañ ko doon seetaan rek wax dëgg yàlla mais journée bu mu tëgg nii te ci kàttanu yàlla <laughs> nday mbaake journée yi mu tëgg yëpp bii moo ciy dàq incha allah. nga ne la. yi mu mës tëgg yëpp le 25 moo ciy dàq dootu ko dootu ko fàtte. ci bëreeg ci spectacle ci ambiance. ci jàkkaar ki nga mooy Bulldozer. waaw ah, parce que dafa ña dafa boole ña nga xamante ne ay xale lañ xale ya nga xamante ne wax dëgg yàlla am nañ ay soppe am ña nga xamante ne dañ leen bëgg te yàlla tax. yee buñ ci boolee Kaw Gourdin Bulldozer rek loolu grand combat ñu boole ci ñeneen ak ñeneen wax dëgg yàlla kon xam nga dañ koy ñaanal yàlla sponsor yi ñëw wuyu si ko lu dul xam nga waa EDK yi ñëw ñëw jàppale ko bu baax Demba xam nga grand Aziz Ndiaye tamit ñëw jàppale ko xam nga xam ne tamit jeune la nañ ko jàppale parce que lii yombul quoi boole ay jeunes kese kese kese wax dëgg yàlla ci benn tàkkusaan génne ci ay millions. kon tamit xam nga dañ koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm ba journée bi lépp lu ciy séentu rek incha allah Baba jaw lépp loo ciy séentu yàlla defal la ko ci incha allah. Mhm. waa tàggatoo bi santaat yàlla bu baax di la bëggee Ndeye Mbacke di nuyu waaw waa internetu seen lamb TV ah di bëggee waat waa Dalifor yëpp di woowaat waa dalifoo yëpp xam nga di nga xamante ne xam nga di leen jox rendez-vous incha allah le 25 décembre di woo saala saala yëpp nag bàyyiwuñu kenn mafia njaga bi. taskatu kër bu nekk fii. nee na daam champion bu mag ñaari champion yu mag yu réeroo woon ba gindeekuwaat Balla Gaye ak Ama Baldé relation boobu loo si wax. waaw relation parce que mooy li may wax toujours rek nañ ko def boo gis nañ ko waxtaanee dafa ëpp solo quoi parce que yaakaar naa ni Sa wala Balla Gaye champion la ba nga xamante ne wax dëgg yàlla lépp loo war a wax ci moom rek war nga toog xalaat Ama Baldé tamit waxi noonu xam nga moom tamit jàmbaar la champion la te ñoom ñaar daam am leneen lu leen boole la nga xamante ne du làmb kon xam nga nañ ko def boo gis waxtaan bi la ci ëpp solo bañ ko bañ jiboowee tamit ñun cëpp kontaan nañ ci parce que nit bi nga xamante ne lu baax doomu layut bu gisee bu gisee lu baax wala lu rafet da ciy kontaan di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal ñu nekk ci kaw ñëpp ñoom ama seen tafaatin xam ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal jàmm quoi combat bi da ngay woo Sa Thiès wala Sa Thiès bàyyante da nga jàpp mbërëm mi di sonal leen fatt leen bàyyante ngeen wala ngeen angi ba léegi non Saliou sama waay la kooku nekkul làmb moo ñu boole wax dëgg yàlla moom du làmb moom sama xarit la mm-hmm. sama xarit la même xam nga même budul dara dañ koy woo bu baax di woo kër su papi ñoo ngi koy woo bu baax a baax xam nga mooy loolu waa waay mafia laalaake bi ñëpp ñoo ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci waa lu làmb sélection maar bi waaw ñoo ñoo ngi waaj ñoo ñoo ngi waaj lu garaaw ñoo ngi waaj lu garaaw waaw ca géej non <laughs> foofu leneen la dem foofu moom day am solo trop parce que xam nga am na ñoo xamante ne dëkkuñu Dalifor wax dëgg yàlla ñii dañoo dëkk Pikine ñii dëkk Thiaroye ñii dëkk feneen ak feneen mais ñëpp xam nga Kaw Gourdin la ñuy bëggee di bëggee xam nga ña nga xamante ne ñoo nekk sélection Mara bi ko ñoom xam nga amuñu seen fay waa Ruuxa tamit amuñu seen fay xam nga mafia mbartal mi ñoom tamit amuñu seen fay ñoo ngi gis taxawaay bi bu baax a baax a baax waa Sutura ñoo ngi gis taxawaay bu baax di woo wa ña nga xamante ne carrément ñooy waa Dalifor foraay bi rawatina waa Yaraax sama nijaay Loosoo ñoo ngi lay woo bu baax Moussa Ndoye. moom du kii ay Loosoo kenn moom. yaa ma xam moom moom avion la day dem di ñëw rek. xam nga Serigne Ndour tamit ñoo ngi koy woo bu baax a baax di woo waa Espagne waa itali ku ci mel ni daa sama grand maa ngi lay woo Jifay maa ngi lay woo waa Belgique Thier maa ngi lay woo bu baax ci combat bi yaag bëgg fallu maa ngi leen di woo waa États-Unis astu maa ngi lay woo sama jigéen ak sa famille yëpp ñoom xama ñoom Paco ñoom moo États-Unis ñëpp maa ngi leen di woo waa France baa daam ñoo ngi lay woo bu baax ñoom ayda Souadou ñoo ngi leen di woo ñoom Ousmane Kempes xam ñi nga xamante ne carrément ñoo nekk Arabie Saoudite tamit ñoo ngi leen di woo ñoom Cissé sama doomu ndey ñu gën koo xam ci njool ñoo ngi lay woo waa Maroc ku ci mel ni Garga Omar Sow maa ngi lay woo bu baax nga ñëw jàpp ci kombaa bi xam nga di woo sama fans yëpp nag supporter yëpp di leen jox rendez-vous incha allah le 25 décembre di woo waa bant ba waaw waa bant ba ñoo ngi leen di woo bu baax ah waa Seras non loolu fala force la waa Seras xam nga ñooñu samay grand lañ samay waay ña nga xamante ne xam nga dañoo bëgg kaaw rek te yàlla tax waa dëgg yàlla waa marché poisson tamit maa ngi leen di woo bu baax ku ci mel ni soor maa ngi lay woo ci combat bi nga ñëw jàpp ci xam nga xam nga combat bi dafa nekk combat capital parce que xale moo ko tëgg comme bu ci boole ay xale faw xale yëpp ñëw te ñun loolu dong lañ bëgg di lancer waat appel ci waa école di dalifoor Dalifort nañ gën a jàppale ki nga mooy sunu papa muy père Modou sunu lëpp la moom dong la ñu am Dalifort tey jii bu lépp demee ba mel ni ginaaw yàlla moom da cee taxaw bu baax muy père Modou Diouf di sunu président mu ànd ceeg xam nga staff beeg encadrement beeg ñëpp wax dëgg yàlla muy ku baax. xam nga waa jaxaw ñoo ngi leen di woo waa Boof ñoo ngi leen di woo waa felaan ñoo ngi leen di woo waa Njaay Njaay Aliou As làmb ji seen làmb la ñoo ngi leen ciy woo bu baax waa Joal sama sœur bu fa nekk maa koy woo bu baax a baax a baax waa Njaay Njaay Fatick maa ngi leen di woo bu baax waa Kaarang ngi leen di bu baax Passy ñoo ngi leen di woo bu baax a baax a baax a baax Kaolack fàttewu ma ko benn yoon waa Touba maa ngi leen di woo waa Bambey Bambey séeréer Bambey taax maa ngi leen di woo bu waaw borom Bambey moom ñoom xam nañ ñoom xam nañ bu baax waa Tiwaawan tam fàttewu ma leen benn yoon ñoo ngi leen di woo bu baax waa Pekes ñoo ngi leen di woo waa Ngaay waa woon xam nga waa Tiwaawan Pël tam dañuy ñëw waa benn baraak waa benn baraak ku ci mel ni Dalifor maa ngi lay woo yow yaa ma gën a xam xam nga ki nga xamante ne mooy jantal Mara maa maa ngi lay woo bu baax ci combat bi borom ñaari paaka yi fàttewu ma la waa Pout maa ngi leen di woo waa 50 waa Jaxaay marché marché ay alkayda bi marché bi maa ngi leen di woo bu baax a di woo waa Yarax waa cité posu maa ngi leen di woo cité assurance maa ngi leen di woo Balbadère xam nga maa ngi leen di woo bu waaw maa ngi leen di woo bu baax a baax di woo xam nga waa Seera sama gars yi ñu fa nekk di ñaanal ñëpp jàmm xam nga di ñaan yàlla yàlla suturaal ñu su ma rakk day bëree le neuf ñu gën koo xam ci caatu kayre ñoo ngi koy ñaanal yàlla suturaal ko may ko ndam ci kaw càndum 2 caatu kayre maa ngi lay ñaanal yàlla suturaal la may la ndam. <laughs> waaw mais noonu la ñun ñun Dalifor la ñu am ñun am Ndeye Mbacke Dalifor rek la ñu am Ndeye Mbacke man luyel nañ ma appartement sama ne du ma dem man Dalifor la am. ñun amuñu leen lu du Dalifort dañuy ñaan yàlla waa Dalifort ñëw jàppale ñu rawatina autorité yi fi nekk ku ci mel ni awaña sama yaay maa ngi lay woo bu baax sunu musala maire Baye Diop ñoo ngi lay woo ci combat bi nga ñëw jàpp ci xam nga jàpp ci bu baax nag comme ni nga ci doon jàppee nga gën ci jàpp Alex Kambel maa ngi lay woo sama grand caca fàttewuma la yoon yow itam ñëwoon nga jàpp ci ku ci mel ni Ségéré maa ngi jël temps bi mais yaa ma gën a xam Ségéré maa ngi lay woo bu baax autorité yi nekk Dalifort yëpp ñoo ngi leen di woo di nuyu tamit sama xama sama jigéen ñi waaw ñoom ñoo ngi wàcc waa benn tàccu waaw ñoom ñoo ngi ñoo ngi wàcc waa benn tàccu bi ah. waaw ñu wàcc bu baax di xam ne waaw le 25 waa ji benn tàccu la amul leneen ñoo ngi leen di béggee bu baax a baax a baax a baax ay ci bég ci moom bu baax a baax waaye ñuy waajal li nga xam te ne mooy le 5 décembre ah xale rimbi rimbi xale jaxase kare du seen làmb sama cameraman bi nga xam ne kenn du moom daa wóor ma bëgg ko di woo Bambo la solution bëgg naa nga ñëw jàppal ma xale bi saa Touba le mara du peuple sëñ àlla borom Bambey ñëwal Abakara woo nga ma sànq mais damaa bëgg nga ñëw bu baax a baax waajal li nga xam te ne nii ah, mooy anniversaire bi le 5 Karidou bu ma topp sëñ Fallou Seck sama papa ji dama koy ziar bu baax a baax comme dama ah ki nga xam ne mooy Abo Sarr ah, xale bi daal di koy jox xaalis bu bare bare bare bare borom li si réew bi mu daal di doxal ki nga xam ne nag mooy euh, Diagne efficace maa ngi koy woo waaye Mame Cheikh maa bu baax a baax ba lunette yi waaye ki nga te ne nag mooy Baye Djili Kébé sama mag la sama la sama sama sama sama genn la dama koy ñaanal un happy buzz di ko ñaanal yàlla may ko jàmm gudd fan àdduna ak àllaaxira maam jëre Kébé borom buur géej hmm, borom ñaari galon yi damay bég si yow ñaanal jàmm naan ñaanal la gudd fan ñaanal la cat bañ laa topp ah nga am xéewal gu bari bari kaaw doo wax de doo fi wax de sama papa Diak parcelle Diak confection waaw maa ngi koy woo bu baax sama père la sama grand la sama lépp la maa ngi lay woo bu baax a baax waa pikin maa ngi leen di woo sama gars yi Pikine ku ci mel ni grand Pape am na lu ñu waxante woon waaw combat bi sa combat la yow yaa ma gën a xam xam nga dige nag bor la waaw Pape Sarr borom pikin ah maa ngi lay woo baax ci combat bi Mansour maa ngi lay woowaat bu baax a baax a baax maa ngi lay woowaat ci combat bi bu baax xam nga di woo waa Pikine Géejawaay ñëpp parcelle bàyyi wuñu kenn ah waa waa sama mafia bi nekk jàmm gën jàmm gan waa jàmm gan maa ngi leen di woo bu baax ñu ñëw jàpp ci combat bi. du ma fàtte ah borom baata yi 10 000 10 000 yi Siteu ah borom cabinet ki nga xam te ne mooy cabinet Cheikhouna Tidiane borom nay dëgër nay dëgër këj maa bëgg nga ñëw tëral ma sama xale bi maam jëre Kébé jii di Kébé borom lu dëdd si am damay di bég bu baax a baax beneen ñoon ak beneen champion ci beneen koñ jaajëf.